noo ngi koy bakk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaan yu kawe yi nga xam ni sunu boroom subhanahu wa taala rek mooy ki ko jagoo mooy ki ci wéet dellu siwaat nañ beneen yoon ci sunu bindab tafsir al qur'an al azim tey tolloog ñetti fan ci shahru ramadan al mubarak muy ñetteelu fan ci weeru koor tombeek ñu yegsi woon ci laayay juróom ñaar fukkeel juróom benn ca suratul isra ci li jiitu woon koor nu ngi sant boroom sant goog yeyoon ak màggaayam ak kawewaay ga ak sori goog sunu borom sori na ko lépp sikk ak i ayiba ki manqué manqué ñu ngi koy sant ci xéewal ak tawfiq yi mu ñu dëkkee defal bokk na ci tawfiq yooyu xam ngeen ni ci weeru koor wi mooy mat fukki at sënkam ci bi ñu tàmbalee bindab tafsir bi ak tey ci jàkka ji weeru koor wii ñu nekk nii mooy matal fukki at ci bi ñu tàmbalee tafsir bi ak tey ci jàkka ji at mu ca nekk ci bis yeñ taam woon di ko tafsir ci semaine bi ak fani weeru koor yi yëpp sunu borom di ci defal tawfiq ñi di ko fekkee am ñoo xam ni fekkeetuñ ko ndax ña nga yeneen i barab am ñoo xam ne fekkeetun ko ndax nekkatun fi ci kaw suuf loolee rek jàpp naa ni war nañ cee sant suñu borom bu baax a baax ak yeneen yu bari yoo xam ne mënees na koo lim ci xéewal yim mën a ànd mbokk jullit yi nu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala ci diir bi lépp loo xam ni gaar nañu fi ci ay njuumte moo xam ci biir téere yàlla bi walla ci bitib téere sunu borom bi wala ci sunuy jëf wala ci suñuy jaamu yàlla wala ci suñuy koor noo ngi ñaan suñu borom mu jéggal nu ko loo xam ne am na ci ci aw yiw yàlla na borom bi tabaraka wa taala may ñu ko te mu dimbali ñu ci xereñ ak man koo denc ba bu mu yàqu weeru koor mbokk jullit yi xam ngeen ni weer wu màgg la weer wu foor la yaakaar naa dégg nañ ko ci ay xutbay jumaa dégg ko ci ay bind dégg ko ci ay waaraate waaye doy na ca fooraay ba rek ñu ne la alquran ci la wàcc moo tax borom xam yu salaf yu yàgg ya dañuy wax ni ku ca daan jàngale sax xam-xam ba weeru koor yegg si da ngay arrêté bind xam-xam mu des alquran kese di ko jàng di ko seetantal ak di ko tafsir di ko déglu loola moo nekkoon seen doxalin ci wéer weeru koor kon mbokk jullit ji nu lu ci téere yàlla bi ci di ko jàng ci di ko nafar lu ñu man ci weeru koor wi ndax xam ngeen ni ca bitim weeru koor kaanal alxasanatu bi ashri amthaliha borom bi boo defee benn tiyaaba da fay fukk kon yéena ma gën a xam ni weeru koor ni ci suñ borom di fayee ku def benn di nga séentoo fayee ku lu ëpp fukk kon ndax suñ borom yu daifu li ma mooy muy fulal ku ko soob kon tay ñi ngi tambalé ci laayay juróom ñaar fukel ak juróom ben ci suratul isra sunu borom mi ngi wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثونك خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان kon laay yooyu mooy nekk sunu bindab tafsir tey tombeek ñetti fan ci shahru ramadan al mbokki julit yi alquran day duñu dañ di baamtu ni téere bu màgg la bal mooy wax ji gën a foor ci wax yu mas a wàcc ci kaw suuf borom bi tabaraka wa def na ni mboolem téere yi wàcc ci kaw asamaan ñëw ci kaw suuf téere bi ci gën a màgg mooy alquran téere bi ci dul folleeku mooy alquran téere bi bi am ndaxañteef mënta tàbbi mooy alquran téere bi kenn mënta génn lu ca bokkoon mooy alquran kenn du ko ngoy lu dul ngoy na ci buum ak yàlla gu dëgër gi kenn du ko bàyyi lu dul dana alku ci àdduna alku àllaaxira alquran day saafara feebari xol di saafara feebari yaram alquran di ko jàng dafay yokk aw yiw ndax xaraf wu nekk benn tiyaaba la dafay rammu nit yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee nit ki su fekkee dafa tàbbi bàmmeelam amaan na mu am ci xeeti rëcc rëcc luñ ko war a mbugalee wala bu jóg ñëwee yowmal qiyaam <coughs> benn jëmm ju rafet ju taaru moo koy fekk fa mu nekk <coughs> ngóor si daal di koy laaj waaw yow la kan mu ne ko ah yow xamoo mu ne ko déedéet xawma la de mu ne ko man may alquran téere yàlla bi man dey dama ñëw pour tin la tey ndaxam day yàgg nga toog ay guddi di ma jàng yàgg nga nekk ay bëccëg di ma jàng <coughs> jëf yooya bu soobee yàlla du neen yonent bi alayhi salaatu daal di koy tin fa sunu yow sunu borom kii de sab ak lu doy waar doy waar jàngkatub alquran la woon ku fonkoon alquran la wax melokaan yam xam ca moom daal ne suñu borom tin ma ci yonent bi alayhi salaam mu ne suñu borom daal di koy tin tàbbal ko àjjana mbokk jullit lool neex na lool nga xam ni yow moom keroog budul woon a ginnaaw ndimbalam sunu borom su dul woon a tinub alquran moom da ngay jàpp naa ne bu dara desul lu dul tin googu fekk yaag alquran defu leen woon nenn keroog xam nga ni jàmm du dikka borom bi tabaraka wa def ni alquran dafay nooyal xol ak ndëraan ni muy labourer suuf ba suuf si nooy ab baq ni muy tooyalee suuf ba gàncax mën a génn nu ko raw noonu la alquran di dof def ci xol képp ku gëm yàlla borom bi ci sunu bind bi weesu mu ngi nuy leeralal pexe yi nga xam ni noonu lislaam yi dañ koy def jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabaam te wala yazaaluuna ba tey di ko def ngir fexe nga wàcc yoon wi nga jaar mu yoonu sunna su ko defee ñu mën laa def nga nekk seen xarit sunu borom mu ni bu dul woon ak dëgëral gi ma la dëgëral yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nga jeng ci ñoom ak lu mu tuut waaye soo ko defee de naa la bugal mbugalum kaw suuf ñaari yoon mbugal la mbugalum àllaaxira ñaari yoon te it doo am kenn ku la dimbali jàpp naa ni mbokk jullit bu dee lii yeneen bi alayhi salaam la ko suñu borom wax keneen ku moom war na cee bàyyi xel bu baax war ngaa bàyyi xel ci ni yàlla rek moo la mën a dëgëral nga dëgër waaye sag njàmbaarteeg sag ngóor sag ngóora taxut nga mën a dem jàkk déedéet am na ku ko bëgg te mënu fi ne jaamu yàlla yi ngay def bu la jayee ba nga foog ni yow moom jàmbaar nga fàtte ni yàlla moo la defal am ndimbal ci nga yëg ni am na ñoo xam ne ñoo la gën a jàmbaare fuuf te li la yomb ci ay jaamu yàlla yomb leen tey jii bis bi nga woor am na ay julit ni yow te wóoruñu ko te dara ci angant amuñu ko tawfiq ji la yàlla defal sante ko suñu borom yàlla mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa wa in kaadu la yastafizuunaka min al li yuxrijuuka minha borom bi tabaraka wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuuti kon gaa yi ñi ngi jéem a def ay cokkaas jeme ko ci yow ah ca suuf sa min al ard min ardi makka ñi ngi def ay cokkaas ak ay menace di ko jëme ci yow loolu la jiit arab yi la nag mooy istifzaz istifzaz ci wolof mooy provoqué ni ñu def ci provoqué ci làkku tubaab wala cokkaas ci làkku wolof wala boog ngay jéem a menacé nit ki maanaam fexe am bunt ci moom nga xam ne amoo bunt waaye léegi da bëgg am bunt ci moom di ko menacé di ko cokkaas ah ca suuf soosee di sa dëkk di màkka li yuxrijuka minha ngir ñu génn la dëkk ba xam ngeen yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu tàmbalee woote gaa yi gis ni woote bi arrangé wu leen parce que jaam bi da daan toog fële sang bi toog fële duñ bokk lekk duñ bokk jataay yonent bi déedéet l'islam ñëpp a yem dañoo war a bokk lekk bokk jataay kon nguur googa ma ngay bëgg a yàqu ñaareel bi da gis ku nekk ak ay doomam ñëpp juboo yonent bi woote ñii tuub ñii tuubu ñu noonu dox seen diggante xaat kon teqali ko am na dangay gis koo xam ni boo ko musaan ni xuuxal ni ko yaa rek daw na tey ñu mën koo yeew di ko dóor ay yar ngir na bàyyi Muhammad mu riposte taxaw benn palaas kon aw fit ñëw na yii yëf yëfaan bi mu leen jaaxalee ñu ni kon dan fexe mu génn dëkk bi lii nag mooy sunnatullahi fil ard moo tax ku ngeen mës a dégg ci taarix ñu ni ab dëkkam génn nañ ko rek xam leen lii la xam leen ni lii la xam ngeen ni am na fi sunu mbokk mu ñu xam mu yàggut ñu koy wax Cheikh Yunus yal na yàlla yërëm ko te jéggal ko doon na wax naan man rek maa am ñu génn ma saam réew yóbbaale saay ganaar yóbbaale saay koog yóbbaale samay lépp moom vol lañ ko jëlal génne ko réew mi lam def ba tax ñu génne ko bu leen umpee yéen gone bu ngeen ko laajee mag ñi xam nañ ko wax dëgg yàlla yàlla defal na ko tawfiq liggéey na fii liggéey bu rëy rëy rëy te wax jam doon wax nag xam naa bu dekki woon tey ba gis ko dana gën a kontaan doon na wax ni maa ngi dem de waaye nen naa fi saay nen bañ tostan loolu lañ wax wallahi wax na dëgg nenam yi tey tostan nañ tey ñii góorgóorlu ci sunna ñëpp du ma wax ñëpp de ay ay ay tostanam lañ waaye day damay wax ni ñii góorgóorlu ci sunna ñëpp koo ci gis ku bokkul ci tostanam dana bokk ku bokk ci tostanam doon na maa ngi dem de génn ngeen ma maa ngi dem yóbbu ko Mauritanie mu ne maa ngi dem de waaye nen naa fi saay nen nag bañ tostan tey tostan na ba mu koy wax booba sunna melul woon nii maa ngi fàttaliku ca ja at yu yàgg ya lu jiitu fukki at biñ doon tafsir ca barab yañ nekkoon am na génn góor gu ko doon fekkee yàlla na suñu borom yërëm ko jéggal ko génn na àdduna léegi léeg-léeg bu ñu defaan tafsir ba nag comme mag la daana def taaliq maa ngi fàttaliku benn bis doon na wax ni yéen seen daaw bi dafa yomb mu ni ñun ñoo fekkee jamonoy bërëngu fii sabilillah maanaam li ñu jublu ci bërëngu fii sabilillah mooy dañ doon def conférence wala bayaan ñu ñëw ñu leen du ngeen ko fi defee ñu di leen dóor a yar ñuy bërëngu di bañ a taw du daw de dañuy bërëngu rek di dem parce que neñ dóor yooyu ñu leen di dóor ñu ni ñoom fii sabilillah lañ ko jàppee moo tax mu ne ma yéen yéen seen daaw bi yomb na yéen dañu leen dara góor googu fekkee na loolu ci ñu doon ànd ak Cheikh Yunus ca la bokk kon pexe yàgg nañ koo def ngir di génneen képp kuy woote moo tax tëjum kaso menace tuuma lépp nañ ko séentu moo damay faral di wax ni kuy pare pour nekk ab daa yi parel pour lépp yéena ma gën a xam ne ku jóg départ jëm ci xare war ngaa séentu bët bu fëq biir bu bënn nopp bu dagg tànk bu damm balaa ñuy xalaat de kon lépp ngay pare kuy dem ci xare lépp ngay pare dara du a bett waaye daaw bi nit ki war naa pare pour lépp tëj kaso tuumaal ci alal léeg ñu xuuxal la boo ragalee daw soo ragalul ñu xëpp la mooy jox la ci alal lu bari nga bàyyi la nga jàppoon xam ngeen ni bari waa na ñu fi nekkoon nekkoon ca lañ war a nekk bañ leen xuuxalee rek lañ bàyyi leen jàppoon loolu boo yaakee ne sag njàmbaarte moo la ci tax a mucc xamoo am na ñoo xam ne ay jàmbaar lañ bañ leen xuuxalee ñu dëgër nekk ay jàmbaar dañ leen xëpp xëpp mooy jaar ak ñoom ci wet jox leen ci am koom loo xam ni mooy sawaay nag bu yow nga noppi bu ko defee ñu daal di noppi bu defee ñu daal di noppi fan yii paase rek maa ngi gis benn waaye bu kenn ku envoyé benn image di laaj nit ñi ndax xam ngeen kii kan la muy image boo xam ne man sax bi ma ko gisee xaw ma kooku kum doon ndekk kooku kenn la ci ñu yàggoon ñu ñoo xam ni fii ci réew mi liggéeyal nañ fi sunna loo xam ni kenn xamut nu tool toll waaye fi mu toll nii ca lam nekk buñ la walee image boobu nga xool ko ñu wan la image bi mu yore tey da nga naan déedéet man mii sax mënu ma koo xàmmee faf te xam naa waaja yooyu yëpp ay ay la pour ñu xam ni mbir yi wallahi yàlla rek moo la mën a dëgëral wala wala an sabbat naaka bu duloon a maa dëgëral sa tànk moo tax gis nga ca xeet yu njëkk ya ci jamonoy daawud ak jaaluuta gis nga gaay yi xool loolu ni mu yàgg yi nga xam ne jiitu na Moussa ak Isa ñoom lan lañ doon wax ah sabbit aqdaamana dëgëral suñu tànk ba ñu dëgër bu ñu wàcc yoon wi wansurna ala alqawmi alkafirin nga dimbale ñu ba ñu mën a not suñuy noon kon yàlla mu ni dañuy fexe ngir génn leen wa idan su boobaa day wa idan laa yalbasuuna xilaafak suñ ko jotoon a def du ñu yàgg ci sa gannaaw illa qalilan lu dul lu néew maanaam même buñ ko defoon dëkk bi dootul neexati ci ñoom loolu mooy lan xam ngeen ne yonente saa salaam dañ koo génne dëgg la nekkul ni jëmm ja lañ génn sànni waaye dañ koo bunduxataal mu génnee boppam ndax xam ngeen gàddaay ga moo demal boppam waaye nag bu taal ga dañ koo génne ci ay jëf mu génn ci jëmmam waaye gis nga bu fekkoon moom lañ jàpp génne ko sunu borom mu ni du ngeen yàgg ci dëkk bi ndax dëkk bi dootul neexati ay mbugal ak i jafe-jafe dana wàcc moo tax Ibn Kathir nee na effectivement sax loolu moo am ndax ba yonent bi génnalee boppam nee na ñaari at la def Madina rek Badar taxaw te yaakaar naa Badar bokk na ci li gën a metti yéebari lislaam yi ba tey bu leen yaakaar ni badar yéefar yi njëkk yàlla métti ba léegi de gis nga historien yi dul ay julit ba sun joonu yàlla yi tey badar daf leen a metti loolu yëg leen ko loolu nag buñ la ko waxee ni yow doo ko xam waaye ki xam adduna bi ni muy doxee xam histoire xam yi njàkk yaag bindkat yeeg seen i wax ah ñiy taalif ay téere nga liir mbindum mag ñu njëkk ñam liir mbindam mag ñu mujj ñi wallaay ci nga xam ni badar ba léegi dafa desal een ci xolu julit victoire bañ ba léegi dañ koy bàkkoo lu mooy dañoo tolloon ci natt seen doole ñii di lim néew ñii di lim bu bari ñoom yéefar ya jullit ñi jàpp leen duma leen ba ñu daw yàlla defa leen am ndimbal mu tombeek weeru koor ah jullit ñi woor ba noppi am kàttan nag dajeeg seeni noon subhaanallahi alazim dañ leen a duma bañ daw yàlla mu ni id yughashikumu nu'asa amana yéen ngi ngi fàttaliku badar seen xel dafa dal ba da ngay gis ku ŋàbbu jaase ba mu yàgg jaas ji wat xam nga lu tax jaas ji wat daa gëmmentu defe ngeen ni ku jëm xare dina gëmmentu ku jëm xare dina gëmmentu déedéet waaye yàlla mu ni id yughashikumu nu'asa amana yéen a ngi fàttaliku yàlla dafa leen confiance ba seen xel dal ba da ngay gis sax ku jaaseem wat ndax daa gëmmentu ah id yurikahumu allahu fi manamika qalilan mbooloo mi dañoo bari lool waaye yàlla wan la ko ci nelaw ñu nekk ñu tuuti ba ngeen xeeb leen yàlla mu ni ma wan leen ñoom yéefar yee ñu gis leen yéen julli ñu ngeen bari ci ñoom fekk loolu yëpp def def suñu borom la ah li yaqdi allahu amran kaana mafuula yàlla mu ni programme la boo xam dañ koo nosoon ba noppi nag jëf rek moo ci sotti ndox ñàkk fañ doon jaar di gannoo suñu borom tawal leen ba bàq bi tooy te xam ngeen ni fas wuy daw di trotte ci bàq moo gën a yomb trotte ci gannoos ak xeeti ndimbal yi leen suñu borom defal yépp moo tax mu ni gis nga jullit ñi suñu borom bam la mu waxoon am na ndax ca badar kilifa yéen gën a rëyle woon ca lañ leen faat moo tax suñu borom mu ni sunnata qad arsalna sunnata lii mooy doxalinu man képp koo xam ne qad arsalna qablaka yónni woon nañ la tim yónni woon nañ ko tim jiitu la min rusulina suñu yonant wala tajidu doo fekk mukk li sunnatillahi ci doxalinu suñu borom ba taxwilan muy amuk soppi ko nii la woon de mbokk jullit yi yéen a ngi gis daawuda gis ngeen jaaluta ba suñu borom di wa qatala daawudu jaaluta gis ngeen xare ya doon am ci jamono yonent yàlla Muusa xare daana am de li lay wan ni xare daana am yonent bi doon wax ne utiitu xamsan lam yuutahunna ahadun qabli yàlla jagleel na ma juróomi mbir yoo xam ne ab yonent mësu koo am ku jàpp ne juróom yooyu la borom xam ñu ne ëpp na juróom dafa lim juróom yooyu rek ngir santee ko suñu borom bokk na ca yu bari la bokk na ca xeet yu njëkk ya bu ñu mosaan a xare ba pare màng mi ñu am jaas yaag jigéen ñañ jàpp ak alal jaag yépp dan ko daan jël taal ko loolu moo nekkoon sunnas màng ci lislaam nag loolu màng la moo xam bu ñëwee jullit ñee ko war a séddoo kon loolu da lay ni xare doon na am gis ngeen ni ko suñu borom nettalee ci suuratul baqara ci diggante daawuda ak jaaluuta ah ak xare yi nga xam ne Souleymane doon na ko def xare yi nga xam ne daawud doon na ko def nga xam ngeen ne bokk na suñu borom li mu ko defal wa alannaa lahul hadiid gis nga tëyër ni muy jël sum way jàpp ëmb bu ñaw ko ba nga ni gii xaral la fan la bàyyi ko ci kaw suuf daawu da noonu la doon jël def ko weñ defar ko ba mu jekk ba nekk am mbubu mbubu koŋ an amal saabigaatin wa qaddir fi sard defar ay mbubi koŋ affaire bi yepp ko nag ba nga xam ne qaddir fi sard fu loxo war a jàll day jekk fu subhanallah mbir mu yéeme kon loolu may sunu borom la woon waaye loolu mooy doxalinu sunu borom ci ñu njëkk ña mooy yonent yàlla bu mas a am rek ci kaw suuf di xare sunu borom dana ko defal am dimbalam xare yooyu mbokk jullit yi moo daan gën a metti xare yu mujj yi sax ndax nit ñi ca lañ gënoon a bari ñaareel ba mooy fan wa ca la gën a gudd doole ji ca na gën a bari coxarte ga it kadalika waaye nag sunu borom wa kaana xaqan alayna nasrul muminin àq la ci ñun yàlla ñuy dimbale ñu gëm yàlla te it nag ñooñu gëm yàlla yëgal ne yow ci nga bokk ba tey moo tax yonent bi salaa sallam ñaar fukki xare juróom-ñaar wala juróom-ñett yim jot a xare yii dem na ci ak jëmmam yii demu ci ak jëmmam ba mu jàllee xam ngeen ni Aboubacar taxawal na ay xare ba ca gën a siiw mooy xurubu ridda nga xam ni booba moom daanaka Aboubacar sax loolu dong la fi jot a def lu lu lu lu ponkale lu kawe ah kenn du ko rekkal sax ndax nag loolu dong moo dib xare ndax nit ñi dañoo génnoon ci lislaam ba xeex yooya jeexee gis ngeen jamonoy Omar ibn al-Khattab ay xare yu bari taxawal nañ ko jamonoy Ali ibn Abi Talib jamonoy Osman ah état yi mas a taxaw yépp ay xare daf doon am xare yooyu nag benn bu ca nekk yonent yàlla bi newoon na sallallahu alayhi wa sallam di ngeen xare di ngeen gañe fi ku nekk ab saxaaba mi ngi ci seen mbooloo di ngeen xare di ngeen gañe fii ku fekkee jamono yonent bi mi ngi ci biir mbooloo mi di ngeen xare di ngeen gañe fii ku fekkee ku fekkee saxaaba yéen sa salam ci xare bi mi ngi ci biir xare bi loolu xadis la muy ay garantie yu ñu leen defal yoo xam daan dalal seen xel te buñ daan xare ji kon sunu borom mu ni loolu mooy doxalinu sunu borom wala tajidu sunnatina tahwilan doxalinu sunu borom du mas sa soppeeku loolu nag moo lay wane ba sun joon yàllay tey ndimbal maa ngi am nag yëg leen ko wax naa leen ko ci ay tafasir yu jàll xeex yi nga xamante ni am na fi ci àdduna ci yàgg yàgg na tax may wax sax yi nga xam ne ay boromi xam-xam nangu nañ ni lii moom jihaad la am na ca yoo xam ni ab borom xam-xam bind na ci téere wane ay xeeti ndimbal yoo xam ni sunu borom yàlla defal na leen ko yoo xam ni moo ki kii kiis kiis borom bi tabaraka wa mu ni aqimi salaata del taxawal julli wala taxawalal julli li dulooki shamsi bu jant bi jengee ci digg asamaan sa jëm côté sowukaay ila gasaqi layli ba jëm ca ñuulaayu guddi ga wa qur'aan alfajri ak jullik fajar inna qur'aan alfajri jullik fajar day kaana mashhuudan julli la guy bari mbooloo ndax nit ña dañuy julli si malaaka yi fanaan ci nit ñi fekkee ko malaaka yi war a xëy si it fekkee ko moo tax inna qur'aan alfajri kaana mashhuuda fii nag qur'aan alfajri la alqur'aani fajar العلامة محمد ال... الشيخ ناصر ابن عبد الرحمن السعدي بمي تفسير تيسير الكريم الرحمن با يكسي آية جي داني وقرآن الفجر اللي تخني تديكو القرآن فجر نخ فجر دا ورا gëna guddum njang julli yépp kon alquran jëta ca wara bari loolu nag njuumte la bu wuuteeg ñun li ñuy faral di def ci melokaanu sifatu salaatu nabi saa sallam fajar moo war di gën a gudd ci julli yi tisbaar topp ci takusaan topp ci timis doog a ñëw ak gee mu ne li tax sunu borom tuddee ko qur'an al fajri nak fajar ji alquran ji da caa war a bari jàng ma daa war a gudd aaye ji nag mbokk julit yi moo tënk waxtu julli juróom yi moo ku jàpp ni man ngaa boyeeg sunna kese te doo jëm ci alquran su boobaa da ngay juum ndax xam ngeen ni alquran ñëwut wax ne tisbaar ñeenti rakk la takkusaan ñeent la timis ñett gee ñaar gee ñeent fajar ñaar déedéet waaye aaya jii moo ko tënk aqimi salata li duluki shamsi ila gasaqi layli moo déparé tisbaar ba gee aqimi salata taxawal julli li duluki shamsi bu jant bi jengee ca diggu asamaan sa tombeeg une nangam léeg-léeg mu nekk une heure moins deux wala yooyu ndax waxtu day soppeeku ila xasaqi layli ba keroog guddi gi dugg si kon yóbbaale na tàkkusaan ak timis ak gee wa quraan al fajri fajar daal di beru moo tax bu ñuy jamoo sax boo nekkee ci tukki wala nga aajowoo jamoo tisbaar ak tàkkusaan ay ànd timis ak gee waaye fajar kenn du ko boole comme niñ ko beree fii booy jamoo noonu nga koy beree fee wa quraan al fajri al quraani fajar inna qur'aan al fajri alqur'aan fajar muy julli googee day kaana mashhuudan maanaam dañ koy teewe moo tax borom xam-xam yi ñu ni ibni kasir nee na duluku shamsi mi ngi tàmbalee ci euh, fi jant bi jengal ñi ko ci asamaan si ba yegg ci ila gasaqi layl gis ngeen gasaq euh, waxoon naa ko ci saar yi tafsir bi saar yi gën a tuuti alxasaq mooy ñuulaayu guddi yi euh, muy lëndam ga mu ni ci leen jël tisbaar ak tàkkusaan ak timis ak gee wa quraan al fajri moo yóbbu alquraani fajar moo yóbbu jullik fajar su ko defee julli yi daal di jeex tafasil ya nag boo demee ci sixaax yeeg sunan yeeg maajim yeeg masanid yi leer na fa nañ sunu borom ni wa qur'an al fajri alqur'ani fajar nag inna qur'an al fajri alqur'ani fajar de muy jullik fajar kaana mashhudan dat koy teewe ibni kathir nee na tashhaduhu malaikatu layli wa malaikatu nahar malaaka yi fanaane wattu doomu aadama yi wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin soo demee ci suratu raad borom baa ngi ko fay junjaat ca tàmbali ba ah borom baa ngi wax ni subhanahu wa taala amna ay malaaka yoo xam ne ñu ngi leen di wattu lahu muaqibatu min bayni yadayhi wa min xalfi yahfazunahu min amrillah gis nga kon ibnu kathir muni tashhadu malaikatu layli wa malaikatu nahar malaaka yi fanan ci doomu aadama yi dañ koy fekke mbokk yi julli fajar reyna de akari yent yàlla bashiril mashaina fi zulam bi nuuri taami yowmal qiyaama ñu topp lëndëm gi di palamtu jëm ca jàkka ja bégal leen ci leer gu mat sëkk yowmal qiyaam gu leen di yàlla yàllay teralee moo tax naafeq mënta julli fajar benn borom xam-xam dañ ko laaj ni ko waaw lan moo tax fajar dafay dal dafay teey heure pire ngay noyyi mu ni parce que yi dañoo yeewoogut mu ni naafeq yi dañoo yeewoogut xam nga <laughs> waaw dégg dégg bu xóot la nag maanaam fajar air pur ngay noyyi mu ni parce que naafiq yi ñoo yeewoogul bu naafiq yi yeewoo rek air dem moo tax bu ñu demee ba jant bi commencé fenk rek air pur tamit dootoo ko mën a noyyeeti waaye jullee ji ko ca jàkka ja nag am ci solo de ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi ñoom dañoo jàppoon jàpp ñàkk dem jàkka ja bàkkaar boo xam ni kenn xamul nu mu toll ci hadis ab Xudayfa nit daana feebar sax wax eh diw ak diw bu ngeen dee dem jàkka ja ngir jaar sama buntu kër yóbbu ma su ko defee dañ koy lëng ku nekk téye ci mbaggam ay tànkam di direeku mu jëm jàkka loolu moom ñun ñii ku ko ci jàngare da daal di rus ndax ñun moom jàpp naa ni ku ci sa bët yi di xapp-xappal weex waxuma la mu wànnen de waaye xapp-xappal di waaja wànnen rek daanaka mën nan doo dem jàkka ja beneen bi ci des mooy mbokk jullit yi dem jàkka dafa ëppalee lu tut dem jàkka lu jar dem jàkka balaa may joxe misaal bi mu ko ëppalee damay joxe misaalu wolof bu leer mbokk julit yi tey jii am na ay monnaie yu ñuy weccax di ko franc bi franc CFA la franc bii franc nangam la franc bii franc guinéen la ñu ne la kat fii ci sa kër sa buntu kër am na kuy wecceeku ay dollar walla nangam waaye moom nag bu la weccee du sa kande moom bu la weccee du sakkan bu la weccee boo ko joxee téeméer yëf yi du sakkan waaye boo waaxu woon léegi nga dem ca marché ba am na benn cantine bu fay wecci waate cantine boobu moom danay wecci wecci bu duun nga xam ne différence bi dafa bari cinquante mille boo joxe mën nga ca am cinquante mille CFA waaye bu dee fii ci koñ bi la daanaka cinquante mille boo ko joxee trente mille lañ lay jox nooy def amul kenn kuy nangoo weccee ko sa buntu kër kenn xalaatu lu foofa sori sori da ngay dem misal bobu nak yeen bi sallam neena fadlu salati jami'i am ben riwaya muy salatu jamaa ala salati alwaxidi xamsun wa daraja am riwaya bu ni 25 wa sabun wa sa jàkka ja ëppale na tiyaba julle sa bir keur ñaar fukki daraja ak juróom wala ñaar fukki tiyaaba ak juróom mooy ëppalante bi ma la jëm misaal ci weccit bi نانا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ملائكة بچك يقودي دنيا دجت يول الفجر أبو غرير مسلو حديث بي من اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يننت صلى الله عليه وآله وسلم نانا أمنا أي ملائكة يرام بلاسم تتيين تلول من صحيح البخاري أك مسلم نانا قدك بچك دنيا دجت وقت فجر أك وقت تاكسان nee na waxtu fajar ak waxtu tàkkusaan ñi ñëwoon ci waxtu fajar bu waxtu tàkkusaan jotee seen ngont daal dinay jeex ñi demoon ci waxtu tàkkusaan su fajar jotee seen heure jeex na ñu ñëwoon ñëwaat jëmal tàkkusaan kon tàkkusaan ak fajar ci la ñuy weccax di konte loolu nag mbokk jullit nañ ci bàyyi xel bu baax ngir xam ni ay malaaka ñi ngi ñu tiim lun manti defek lun manti wax sunu borom xam na sunu borom mu ni wa min allayli ci guddi gi fatahajjad na nga naafila fatahajjad na nga dóor ay rakka bihi ca guddi ga naafilatan mu nekk ndollent laka ñeel la asa aman na an yabaasaka dina la dekkal rabbuka sa borom yàlla maqaamam mahmuda barab boo xam ni da nga ca kontaan ku farak yawit da nga ca kontaan mbokk jullit yi ci tàmbalik lislaam julli guddi farata la woon ci ñëpp yonent bi ak sallallahu alayhi ku julli guddi ci tàmbali l'islam farata la woon waaye bin demee ay ab diir bi tàmbalee diis ci la mbir mi soppaliku nekkatul farata yéen a ngi fàttaliku suuratul ما شاء الله جزاك الله خيرا سورة المزمل سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائف من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم ليجي فقروا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى wa axaruna yadribuna fi l ard yabtaxu min fadlillah wa axaruna yuqatiluna fi sabilillah yii moo tax sàmm ko jafe na mu ni faqraw ma tayassara léegi julli loo mën a julli rek ginnaaw ba mu nekkee farata waaye yonent bi moom daa continuer nekk farata ci moom sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nekk gi muy nekk farata ci moom te jéggal nañ koy bàkkaaram ba pare da koy gën a yëkkatil ay daraja mooy asaan yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda ñun ñii nag moom julli guddi day nekk sababu suñu jéggalu bàkkaar moo taxit julli guddi am solo moom wax nañ ko fi mi gayri marra sunu borom ni wa min al layli ci guddi gi fatahajjat na nga door ay rakka bihi ca guddi ga naafilatan lak mu nekk say naafila ñeel la yonent bi sallallahu laaj nañ ko ni ko ayu salaati afdal bu julli farata yi jàllee gën julli moo gën mu ni salatul layl julli guddi moo gën am benn mu ne jawful layl akhir fa guddi kay waaj a jeexee sax nag nga xam ni fa la sun borom di wàccee ba ci asamaanu benneel di wax kuy ñaan ma may ko kuy jéggalu ma jéggal ko allahu akbar muy lu rëy loo xam ni jàpp naa ni ki ko xam dëgg dootu ko ni mu laka gis nga naafile yi ngay naafile ya ko moom de sa affaire la de boo ko sa affaire lay doon sa affaire lay fa tahajjat bihi naafilati mu ne naafilatan laka affaire bi yow lay jëriñ après yaa ko moom gis nga de asa aman na an yabasaka rabbuka sunu borom yàlla dana la dekkal maqaman mahmudan place bu forte kawe aaya ji nag ci yonent bi la jëm donte borom xam-xam yi nee nañ képp ku nekk ku jullikati guddi la shakka borom bi dana la yëkkatil ay daraja kawe ci àdduna ak àllaaxira ti tamit sunu borom dana la jéggal say bàkkaar تيت نك جوخن بي دا جيم سي كي ياو دونت دو نيك فراتا المقام المحمود موي برب بوب نين دي نيانال يونت بي صلى الله عليه وسلم بو نيو نودي با نوبي بابا عفو مقام محمود يونت يالا بي نينا كو ديغ نود با بار نغا اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمد الوسيط الفضيله وبعث مقام محمود التي وعدته ñaan googu boo ko ñaanalee yon sa salam mu ne xallat lahu shafaati yawm alqiyama yow moom sa yeboo nga xam ne tippoo naa la pour rammu la yawm alqiyama allahu akbar loolu simple na de yàqalu la dara fi mu nekk nii ñi ko doon def ban juddoo ba léegi ñi ngi koy def te yàqalu la dara pour niñ ci benn énergie beneen bi ci des mooy xam ngeen ni almaqaamul mahmud moog wasilat ak fadila barab la yu kawe ca yawm alqiyama yoo xam ni waxuma la nit ñëpp ko bëgg waaye yonent yàlla yëpp ko bëgg yonent bi nee na kenn na ko jagoo te yonent bi lay doon sallallahu alayhi wa sallam Xusayfa nee na ah, nit ñi ne danañ leen dajale ci benn barab ci yawmal qiyaam barab boo xam ne ku ni xëy ñëpp dégg soo bu xëy sabat gis ñépp ñépp dañuy fandaañu dañuy keletu dañuy rafle du sol yére duñ sol dàll bopp neen yaramu neen amul kenn kuy ngippi gémmiñam لودو سن بروم كو جخ نديغال سن بروم ني اي محمد صلى الله عليه وسلم مني كو لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك والمهدي من هديك وعبدك بين يديك ومنك اليك لا من جاء ولا ملجا منك الا اليك تبارك وتعالى سبحانك رب البيت لي موي توج جي گنا ريني واخ جي موي توج جي گنا ريني الاخره sunu boroom mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko wuyu naa la yow sunu boroom tudd sag màggaay ak sag teddaay lépp luy yiw mi ngi jallu fi sa kanam lépp luy safaan sori na la ku gindee ko yaa ko gindi ku sànku yaa ko seetaan musiba sori na la sa jàmbaa ngi nag ni sëcc taxaw wuy la ci yow la bàyyi ko moo taxit dellu siwaat na ci yow mucc ak raw mënta am lu dut yaa muccal yaa rawal barkel nga yow sunu boroom tudd naa sag sell yow borom kaaba gi allahu akbar bu loolu amee foofu nag fa la yëf yey tàmbalee yonent saa sallam nee na moom mooy ki suuf di njëkk xar mu génn alaxira ida boasira ma fi lqubur bu suuf si xaree yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy njëkk a génn keneen ku cay topp topp ca wax na ci beneen riwaaya nee na yuuxu gaa xaacu ga malaaka ga bu amee ba nit ñëpp xëm nee na bu ñu dekkee man maay njëkk xëmmali ko jug nee na su ma jógee damay gis Muusa jàppalu ci ron aras xaw ma ndax daf maa njëkk a dekki njëkk koo dekki parce que nee moom mooy njëkk a kon moo njëkk a waaye waxin la ndax da koo njëkk a dekki wa illaa boog moom dañ koo teralee xëm gam xamoon ndax daa bëggoon a gis sunu borom sunu borom ni ko doo gis mu mu ni ba mu doon essayé far mu jaaree fa xëm moom laa joxe misaal toujours ma ni Moussa ku ko xam ak ni mu dëgëreeg ni mu fiteeg ni mu njàmbaaree bu dee sunu borom da koo yabalal ak leer mu daanu xëm jàpp naa ni képp ku ni la gis na yàlla ku nekk kooku da nga ko war a reetaan rek nga bàyyi ko mu dem waaw kooku da koy reetaan rek xam ni kooku am xelam daa saxut ca bopp ba borom bi tabaraka wa defal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay jagoo yoo xam ni mbokk jurit yowmal qiyam benn yonent amu yowmal qiyaam dañuy wax ne bu ñu dekkee ñéppay kelatu def tànku neen di dox ba mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko wutal war waay moomoom déegab kawsar ba ramb ga gën a mag moo ko moom tey nag mooy tinuwaate comme ni ma ko nar a tuddee léegi ginnaaw boo xam ne yonent yàlla yi ñu baree baree bari delloo nañ ko buum ga mooy borom wasila mooy borom fadila sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te it nag waxuma la ram nit ku waroon a dem sawara mu dem àjjana waaye même ci biir àjjana sax am na ñoom fay ramm maanaam waa ji day nekk premier étage ñu yégal ko deuxième waaji nekk dixième ñu yégal ko vingtième étage kii nekk centième étage ñu yégal ko mil fekk loolu ci ramm gi lay bokk yal na yonent yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla boole ñu ci rammam yonent bi sallallahu wasallam nee na jant bi daañ ko wàcce ba mu tiim nit ñi ba seenaw ñaq am na ñu mu yegg si seeni nopp seeni booco seeni ndigg seeni óom nee na jaam yi jug di sàkk wallu dem ca aadama mu ni du man ñu dem ca Muusa ñu ni du moom ñu dem ca Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu taxaw buntu ajjana sunu borom aj ñu ni ko ah yow day yow lan digaloon bunti ji ajjana lu yow mooy borom maqaamal mahmud nee na keroog la ko yàllay def la jox lam ko digoon wala sawfa yutika rabbuka fatarda ak lam ko waxoon ah yabaasuka rabbuka maqaaman mahmuda barab boo xam ne ñëpp dañ cay kontaan sunu borom dana la ca dekkal loolu su ma ko bëggoon a tënk damay wax xadisab imam ahmad ci musnad abi hurayra moo ko solo mu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de benn bis dañ koo indil ak lekk yàpp la woon mu daal di jël la tolloog pooj ba sallallahu alayhi wa sallam di ko lekk nee na bi mu ci ŋànkee benn yoon rek daa di siggi wax saxaaba yi ne leen ana sayyidu waladi aadam ana sayyidu naasi yawm alqiyama nee na yawm alqiyama bu yàlla dekkalee jaam ñi man maa fay nekkub sang am na beneen riwaay dañ te bàkku taxut xam ngeen loolu nu muy demee sahaaba yi ni ko déedéet mu ne yàlla day dajale nit ñu yàgg ñaak nit ñu mujj ña ñëpp ca benn barab woote ba nee na ñëpp a koy dégg fan taxaw koo séentu gis ko ku wax ak yow nga dégg ko ndax benn barab la bu xat lay doon yaatu lool ba nit ña man faa xaj waaye xat lool ba nit ña di fa raj raj loo sunu borom dana wàcce jant bi ba mu tiim nit ñi nee na njàqare gaak tiit ga moom bul xam fu mu toll nee na ñenn di wax nit ñi ci moom si waaw yéen mbir mi lu xew waaw xanaa duñu am ku ñu dem mu jéem ñoo tinu ndax mbir mi kat metti na yàgg na nee na su boobaa ñu dal dem ci baay aadam alayhi salaam ni ko ay aadam aadama yow day xam nga ne yaay bàyyi mbindeef yi yow moom la yàlla defal defalu ko kenn ndax yàlla moo la bind ci loxob boppam tabax la ci loxob boppam roof ci yow ruu digal malaaka yi nañ la su jóot su jootal loolu de aadama yow rek yaa ko am aadama tey ngaa jóg nga dem tin ci suñu borom mu atte jaam ñi wala mu dimbale nu nee na aadama daal di wax ni ah sunu borom yàlla dem mer na tey mer moo xam ni mësu koo mer te dootu ko merati te it man maa ngi fàttaliku daf ma tere woon bu ma laal garab ga ma laal ca jàpp naa ne man fi mu nekk nii sama bopp laa tal waaye taluma leen yéen ñii loolu nag noonu lool mbokk yi nee na ñu daal di départ dem ci yonent yàlla noox def mbooloo ni ko yow de xam nga ni yow la yàlla njëkk a ci kaw suuf nga nekkub yonent alquran nag moom yàlla tuddee na abdan shakuran jaam bu ñu gërëm santaa kon yàlla tuddee na la ko kon yow moom jaam bu ñu gërëm nga ah waaw te ngaa dem nga tiñu ci suñu borom yëf yi kat métti na mu daal ni man day sama bopp laatal sama borom yàlla day mer na tey mer moo xam ni mësu koo mer dootu ko mer man saa bopp laatal tee nga seeti Ibrahima ñu daal di waaxu dem ci yonent yàlla Ibrahima alayhi salaatu wa salaam yow de xam nga ni yaay Ibrahima yonent bi yàlla bi soppe bi yàlla bi xaritab yàlla bi yow moom am nga cër est ce que doo ñu tinul fa sunu borom Ibrahima ni day sunu borom yàlla mer na tey mer moo xam ni mësu koo mer dootu ko mer. mbokk jëli lii du ay léeb de te lii du lit lu nit di dégg di ca kontaan mbaa nga di ko dégg di ànd ak féex déedéet waaye xalaatal sa bopp ni yow ca mbooloo mooma ngay bokk fañ ngay mucc xamoo ko man de sama borom yàlla digaloon na ma man de am na ñetti mbir yoo xam mas naa kaa wax te bëgg a mucc tax te demeewut noona te loola borom xam-xam yi leeral nañ ko ba Ibrahima am na ca ngànt mooy bam mu ne ko kañ jaamu ci xiram yi mu ni damaa feebar inni saqim kii loo bokk moom mu ni sa sama mbok la wax na dëgg ab mbokkam la inni saqim daa feebar billahi daa feebar parce que boo amee pas-pas dëgg dëgg dëgg boo gisee jaamu ko ti xiram yi dangay ngay feebar kii lu ngeen bokk mu ni sama mbokk la te fekk soxnaam la wax na dëgg mbokkam la parce que moom dong moo nekkoon mbokkam ndax moo fa gëm yàlla ci kaw suuf te wal muminuuna baadum awliyaau baadin innamal muminuuna ixwa waaye wax jooja rëy na ci moom mu ne loola laay lijjanti tey waaye man taluma lii ngeen di wax dem leen ci Moussa alayhi salaam ñu ñëw ci Moussa ni ko ah yow de suñu borom daf laa tànn nga dib yonent yow de ku foor nga xaritab yàlla nga yàlla da laa tànn istafaaka bi risaala wi kalaami jox la tawraat bind ko ci loxol boppam Moussa ni sama borom yàlla mer na tey mer moo xam ni mësu koo mer te dootu ko mer man sama bopp laa tal te it xanaa da ngeen a fàtte ne man am na bakkan ba ma reyoon lijjanti loola laa tal mooy bakkan ba ma reyoon ba ma ba ma àndeeg xadir ba ma bakkan bam rayoon dem leen ci Isa ñu ñëw ci Isa ni ko yow day moom nag moom yow moom yaa ci des ndax yow moom amoo baay ak ruu la rek bu ñu wal ci Mariam wax nga bi ngay nekk gone jox nañ la injil waxal ko ay mbaax mbaaxam bañ pare mu ni sama borom yàlla mer na mer moo xam ni mësu koo mer te dootu ko mer fi mu toll nii man saa bopp laatal bu yeboo ngeen dem ci Muhammad صلى الله عليه واله وسلم نانا ني دال دي نييو تي محمد صلى الله عليه وسلم نيكو اه يا محمد يا ودي خاتم الانبياء يالا جيغلنا لا ساي بكار لا جيتوك لا موتشو تيغا نيو رامال سونو بروم خانا غيسو فين تول ني مل نانا فا اقوم فاتي تحت العرش نانا ماني نيوكيت جوك تنكم تنكم برون عرش فاقع ساجدا لربي عز وجل نانا ما روت سجوتال يالا عرش summa yaftahu allahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni sanaa'i alayhi ma lam yaftahu ala ahadin qabli nee na yàlla mel ni daf maa yenkeewal déey ma xamal ma ay baati tagg yàlla yoo xam ni fi mu toll nii sax man xawma baat yooyu lu mu doon subhanallah maanaam baat yam dara wax sax mu ni fi ne dicté guñ ko ko dafa mel day ñibaay boobu rek ñu sol ko ko benn jaam mësta tagg yàlla tagg gu mel noonu nee na ma tagg ci yàlla bàkk ko ca nee ñu ni ko yaa muhammad irfa rasak e muhammad sigil nee ma sigi ñu ni ko wasal tuata ñaanal lo ñaan ñu may la wasfa tu safa ramul ñu tin la nee fa arfa rasi ba ma sigge sama bob bi lama ñëk wax rek moy ummati ummati allahu akbar allahu akbar wallahi mbokk julit yi boo xamoon yonente bi alei salaam ni mu amee woon ci aw xeetam fi ne bëgg gi ko bëgg dafa tuuti yonent bi mbirtoon na ceew lu ëpp lii yaakaar naa ci minbar bii defoon nañ fi xutba hal addayna xaqal mahabbati fi rasulillah est ce que ñun matal nañ dëgg dëgg àq biñ am ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa kadalika hal addayna xaqal mahabbati fi ashabi rasulillah wallahi boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi aw xeetam lim ko jaral ak yow fi la yonent bi toll ci ngay xam ni yow yonent bi sallallahu alayhi fa yow ko sax borom nee naa naafila di jooy ba fajar jot ngir sàkku njéggal aw xeetam bilal moo ko nettali nee na ma yegsee sijaada fa muy a nga a xep bay siit nee na yonent bu nekk yàlla may na ko ñaan ku nangu mu ñaan ko mu nangu ba mu des man mu ni sama ñaan dama koy ñiraamtal dama koy ñiraamtal ba yowmal qiyaam ma dencal ko sama xeet yonent bi daa amuli doom daa amuli waa kër daa amuli bokk daa amuli saxaaba waaye mu ni aw xeetam la koy dencal صلى الله عليك يا رسول الله ماني امتي امتي سما وخيت سما وخيت الله اكبر بقي يلا خمنا خيت يجقيا نتا موسى باتا ايسا باتا نوح باتا لوط باتا شعيب ذو الكفل ادريس مولم خيت ودق يونت بنا امتي امتي رك تساسا دنجي نجيجو بغونا بوك تاو خيتم باسكو لوكو ورال موي ay privilège ak i garantie ak i jago yu leen jagal yoo xam ni xeet yu njëkk yi amuñu ko wallahi amuñu ko yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu ni ko Muhammad ak porte ngi soo xam ni tànnal ñi nga xam ni ñoom dañ leen a jagleel xisaab du am ci ñoom nan jaar fii dugg xam ngeen yéen tasam nee na am na juróom ñaar fukki junni nit yoo xam ni dinañ tàbbi àjjana kenn du leen xisaab kenn du leen xisaab subhanallah yowmal qiyam fi ne lan moo fa jar ci lu xisaab ga jant bi wàcc ak jo amamat utee kitaab bi yamin yeeg bi bi simaali yeeg wara azhar yeeg yooyu yëpp coow lu coow lu mooy xisaab gara rek waaye kañ ñi duñ la xisaab yow sa yoon nekkul ca kitaaboo bi yamin yi kitaab bi simaali yi wara azhar yi jant bi day wàcc laa yasma yàlla mu ni ñoom sax moom laa yasmauna xasiisaha ñoom riir ma sax lan dul dégg nag faf fële la ñuy teggi ca gannaaw moom la yonent sasalam ni ñu dugal leen ci benn bunt keroog ba ko yonent waxee benn waay bi ñu wax Ukaasa ibni Mihsan ak fulla ji dal di jóg ne yonent sasalam teeg maa ñaanal yàlla ma bokk ca yonent bi ne ko toogal ca ngay bokk bu soobee yàlla allahu akbar toogal ca ngay bokk xam nga loolu moom bu ko waxee moom xam ngeen ni wax dëgg yàlla ñeneen ñi dañuy daal di jóg bëgg a wax mbooloo bi nag commencé kenn ku nekk jóg ka jëkk a jóg mu ne ko sabaqaka biha Ukaasa gis ngeen te mënoon a jàngale gis nga daa yi sooy wax ak ay nit war ngay moytu di blessé nit ñi te doo ko yëg xam nga yëpp yi moom occas sa tëj ne ko waaye mënoo cee bokk ak doo ko am xam nga yooyu boo ko waxee ni day day génn génn jàkka ji day rey boppam waaye xoolal waxin wi ni mu nooyee doo ca mer te yëf yi tëj na waa ji tëjal dañ ko tëjal na ñee te du ca mer sabaqaka bi awkaasa daal di reetaan ni ko ah eh, eh, yéen da ngeen a yéex awkaasa jiitu na leen ci bunt ba xam nga bu ñu la ko waxee dëgg la bëggoon nga caa bokk waaye nag doo yëg mer waaye bu ñu koon mënoo caa bokk nag foofu yaakaaru leen ni kooku moom du dee foofu gis nga moo tax méthode bi mu doon joxee sallallahu alayhi wa sallam méthode bu yéeme la uslubu daawaam lu yéeme la moom ñu jàng histoire xam nañ ko def naa ko fii ci dundu xayaatu saxaaba kéemaanu yàlla la woon Okasha ibni Mihsan ci shuhada yi la bokk yonent bi nee na sallallahu alayhi wa alihi nee na ñu daal di ubbi buntu ajana yi nee na giñ naa ci ki nga xam ni sama bakkan mi ngi ci loxoom ajana bu jee ngalaleet bunt bi nee na xott njëkk sa korosé korosé bii maanaam selliir yi fañ ko wekk ca bunt bii ak selliir yi fañ ko wekk ca bunt bi bu ajana ubbeekoo diggante bi tol na ni Makka ba Hajar misaal boobu mooy diggante Dakar ba Tamba maanaam ajana buñ ubbee bunt yi maanaam bunt bi mën naa toll ni diggante Dakar ba Tamba ñaata kilomètre la subhanallahi alazim loolu xanaa kan waxuma la waa Sénégal waaye waa adduna bi yëpp ñëw leen ngeen duggandoo te kuy dugg bul laal sa morom maanaam mu yaatoo su ma la ko doon mooy yéen waa adduna ñëw leen ngeen dugg te kuy dugg bul laal sa te ñëpp danañ xaj loolu mooy yaatuwaayu buntu àjjana mu yaatoog mu xatak lum ci mëna a doon daal moom yàlla na suñu borom booluñ ci defay tàbbi moom bokk jurit yi ah lol de lu reuy la kon yaronte bi alayhi salam mom la ko suñu borom asan yabasaka rabbuka maqaman mahmuda maqamul mahmud moy lol mala wax nga xamanteni suñu borom da koy jox wala sawfa yutika rabbuka fatarda yàlla dina la jox dila jox dila jox ba nga kontaan muy ram amna ko xamni alquran je ko ram am koo xam ne bëgg gi bëgg yonent bi sallallahu alayhi am maam kenn ku ci nekk rek ak ca sal ak ramm di jaar waaye yonent sa sallam ak rammam moom moo gën a for mboolem ramm yi ma yonent yàlla yi ma sa ramm borom bi tabaraka wa taala mu ni su boobaa nag sunu borom dana la jox ba nga kontaan moo tax mu ni ko alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ayilan fa aghna fekkuñ la nga nekkub jirim ñu yiir la aar la ba ñu nekkul ci di la ñee waxoon kay wa wajadaka dallan fahada fekkuñ la woon nga ñàkk a tege ci yoonu ñu teg la ci yoonu ba nga gindeeku waxoon kay wa wajadaka ailan fa naa ñàkk ko woon ba ñu toog weer ci du tàkk sa kër ñu dem ba yaay maye téeméeri gëléem waxoon kay kon buñ la diggee fee xam nga ni wolof yi nee nañ ku la jox añ ak reer bu nee la toogal xaar ku la jox ndékkeeg añ bu ne toogal xaar réer baa ngi ñëw vraiment war nga kaa gëm nag borom bi tabaraka wa bu de yowmal qiyaamee mu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam googu gis nga fi ne ak lu mën a xew boo faatoo ak loo bandi bandi ak loo say say say say te bokkaale yàlla amul ci say yëf di nga dugg àjjana bu soobee yàlla damay wax mbokk yowmal qiyaam fa yàlla àttee ku ko fekkee te mu wóor la ni say jëf bokkaale amu ca demal jege buntu na nga taxaw fa xawma ful kañ lañ lay rappel nag waaye bu ñu la woy di nga dugg bu soobee yàlla bokkaale yàlla moom kay moom da yéex a dugg dinga di nga jaar sawaraat danañ la mosal tuuti am mbugal yooyu yëpp mën na ca am wala nga dugg noonu sans loolu lépp di am waaye li wir mu àjjana da nga fa dugg moom loolu xadis la loolu moo lay wax ni bokkaale lu garaaw la waaye loo am ci ay mbaax mbaax te bokkaale yàlla am ca saya boo nga dem buntu ajana di ñooxu ba sa mbaggam nday joor tàbbi ñu ñuqi génne la parce que ajana ci boppam bokkaalekatu yàlla du fa dugg wa yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna loolu moo war a tax nag bu dee am nga yërmande ci sa bopp am ko ci sa baay sa yaay sa bàjjen sa ndijaay sa rakk sa mag say mbokk kenn ku ca nekk góorgóorlu loo man ba bokkaale yàlla bu mu bokk ci waqul sunu borom mu ni yonent bi qul waxal rabbi yaw sunu borom adxil ni yàlla nag ma dugal mudxala sadiqin duggu dugg bu dëgg te am jàmm wa axrij nii boo may génne muxraja sadiqin yàlla nag ma génne dugg bu dëgg génne dëgg te am jàmm borom xam-xam ñu ni mudxala sadiqin mooy madina muxraja sadiqin mooy màkka ndax màkka la génne màkka la doon dugg wajaal lii yàlla nag ma defal sultaanan ak doole joo xam ne nasiran ci lay amee ndimbal ndax xam ngeen ni sultaan ci la ñuy yaraatee walaw la dafa allahi nnaasa baadahum li baadin la fasadati l ardu bu yàlla jëlul woon ñenn ñu féete kaw ña ca des ñii di yar ñii ñii di nangam ñii nekk njiit ñi nekk nañ topp ah adduna bi day yàqu parce que su boobaa kon musiba dana am sultaan gii nag yàlla defal ko ko muy kattan goo xam ne du woon ak nguur waaye kattan dëgg la nasiran bu nekk lu may dimbale wa qul na nga wax ni jaa alxaqu dëgg day yegsi na wa zahaqa seynate nuur albaatilu li nga xam ne moom mooy ay caaxaan inna albaatila ak neen de fu ko dëgg fekk kaana zahuqan da koy seeyal allahu akbar loolu yéen a ngi fàttaliku ba yonente bi saa sallam dee def fatfu makka fekk xërëm yaa nga wër kaaba ga ba ñuy toj ayi la doon dëgg yegg si na neen nuur na seey fu dëgg fekk dëgg fu fu fu dëgg fekk caaxaan seeyal ko nuural ko mokkal ko ñuy cor li nga xam moom mooy xërëm yi yëwaroon la nga xamante ni moom mooy kaaba ga kon Abdullah ibn Mas'ud nee na keroog ci Sahih Bukhari mu ni keroog bi yonent bi saa sallam di toj yi loolu lañ leen doon tojee kon mbokk jullit yi nu xam ni borom bi tabaraka wa taala day dig na yonent bi sallallahu alayhi ay dig yu rëy a rëy a bokk na ci mooy maqaamul mahmud noo ñaan borom bi tabaraka wa taala moom mi nga xam ni mooy borom jàmm yàlla na suñu borom defal nu jàmm defal nu tawfiq koor gi yàlla na suñu borom nangul nu ko jaamu yàlla yeeg julli yeeg jàngal quran meeg tarawih yeeg yépp yàlla na suñu borom nangul nu ko nu ngi ñaan borom bi yàlla na yàlla boole ñu ci ram ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye nañu boole ñu ci shafaati alquran wa an yaj'al alquran alazima rabia qulubina wa nuura sudurina wa jalaa ahzanina وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين